en quelques jours, pour ne pas dire en quelques claquements de doigts, nga réussir mobilisation bi suñ la mayoon ay fan y a ne kon kenn du xaj fi ci jardin Nous ambition commune pour Rufisque monnaie, je veux dama bëgg liggéey ci département bi département le la il faut le postuler fa le être candidat man ma dama candidat à la mairie de la ville de Rufisque mu ne ma jàppale naa la ci sa candidature Je ne ko man tam naa la suis lu tax ma koy raison yi bari dama cee bëggoon wax rek ñaar wala son profil intellectuel son profil d'expertise son profil professionnel développement urbain développer dëkk li nga gën soxla li jiitu ci li nga xam ne soxla ngeen ko kon profil comme ressource humaine mooy koo xam ne xam-xamam màcc na ci wàllu dëkk ak dëkkuwaay te loolu nag mooy urbanisme te dëkk bu mel ne Rufisque nag suñu bébét bi jiitu suñu problème bi jiitu une équation centrale pour parler comme les Français c'est un problème d'urbanisme et d'urbanisation donc si on en un profil. su dama bëgg le président du conseil départemental loolu a profil bi nga soxla il va peser de tout son poids sur la balance électorale Je yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla ñu yàlla may ndam man dama koy sant di ko gërëm di ko remercier ci li mu jël décision ñëw ñu ànd pour dem ci élection yi pour liggéey Tëngéej ville et Tëngéej département ku nekk li nga waroon wane pour wane ne am nga représentativité ba war nañ laa investir wane nga ko ba pare pour l'instant fi ñu toll nii li ñëpp war a def gor yëpp war ko def militant discipliné yi war ko def ñi ànd ak président Macky Sall gëm ko déggal ko war ko def mooy nag déglu président de la république Macky ndax moom moo ko wax ca Kaffrine moom moo ni ca Kaffrine élection yi ñu jëm nii nekk na élection yoo xamante ni dafa am solo solo boo xamante ni investiture yi duñ ko fooye duñu def la ñu defoon 2014 2014 dafa ne woon ku bëgg a nekk candidat nga nekk candidat nee na bii pas du demee noonu investiture yi dañ koy def de façon rigoureuse investiture dañ koy teg ci yoon duñ ko def dans le désordre ba nga xamante ni li ñëwoon fii xew fi Tëngéej en 2014 mooy xewaat mooy lan mooy président Macky Sall am fi majorité Benno Bokk Yaakaar majoritaire fi ñu dem élection tasaaroo. opposition bi ñëw ramasser victoire loolu duñ ko nangu